Euh, maa ngi tudd Bijou Socé liste je maa ngi dëkk France donc dama ni uniquement pour supporter euh, suñu gaynde yi vraiment di leen encourager di leen ñaanal 2021 yan nañ Sénégal am ndam loolu rek laa leen di ñaanal te di leen di leen di di souhaiter encore di di gën a euh, comment dirais-je di gën a encourager Aliou Cissé avec ses euh, coéquipiers di leen ñaanal vraiment que on a perdu le combat mais la la vie continue incha allah bu sooba yàlla coupe bi dina ñëw Sénégal incha allah vraiment c'est ça.